nekk di def nii donc révolution boo xamante ne nii dafa am benn nit benn leader ñu gis ko am yaakaar ci moom yaakaar ne moom mooy changé li nga xamante ni moom mooy dundinu sénégalais yi moom mooy changé aussi dëkk bi euh, boo xoolee deux mille euh, deux mille dix neuf ci élection yi nga xam mooy élection présidentielle yi ñu dem Ousmane Sonko ñaata la amoon quinze pour cent la amoon donc am plus de xaw ma sept cent sept cent mille voix bi ñu ñëwee ci élection législative deux mille vingt deux yi donc mu am plus de un million de voix yoo xamante ni benn liste euh, suppléant la woon ba moo demoon moom sax bokkul woon ci élection yi donc locales yi gis nga maire yu bëri yoo xamante ni fal nañ leen Ousmane Sonko si moo tax ñoom ñu falu même ñi nga xam ne bokk moom sax nangul nañ ne ñoom li tax ñu ñàkk élection yi parce que Ousmane Sonko dafa ñëwul ci seen localité je pense que loolu ñëpp dégg nañ ko mu leer nañ léegi nag moo tax bi ñu ñëwee ci que damay dem sax jëlal élection présidentielle que ñu bëri ñi doon toog ci plateau télé yi di wax naan actuellement nii donc 54 pour cent yi dafa wàññeeku bu ñu demaatee duñu ko am mais élection bi li am wane na ne 54 pour cent yooyu nga xam ne ñoom ñoo voté woon pour président de jomaa Diomaye Diakhar ñoo ñooñu noonu tey dafa gën a yokk mais wàññeekuwul mais nag xam nga souvent élection euh, locale ak élection présidentielle wala législative yi demee noonu toujours du mën a bokk parce que taux bi du bokk parce que sénégalais yi ni ñuy demee di voter élection présidentielle duñ ko voter si élection législative maanaam forcément mënoo ne tey ji élection présidentielle 4 millions de personnes ñoo demoon voter ji législative 4 millions dem voter ji donc gis naa sax benn waaye dem mu toog ci plateau télé yi di analyser euh, di def di def comme noonu naan voilà donc askan Sénégal donc ñu bëri ñu voté parce que donc dañu am déception ci gouvernement bi. donc ay ay wax yoo xamante nii mooy Adja Adja Adja kii Adja Doudou Coulibaly. je pense que moo waxoon ne moo waxoon ne bu Pastef gagné élection yi nañ ko woowee Adji Sarr kon tey man wax dëgg yàlla par respect dootu ma wax Doudou Coulibaly mais li may wax mooy Adja Doudou Coulibaly moom laay wax léegi xam nga xam nga loolu xeetu xeetu xeetu manipulation la mooy tey jii nii dañ ne woon Pastef bu gagné élection yi dañ ne woon seni su Sénégal dañu sonn par rapport ak jafe-jafe bi nga xam ne ñi ngi koy dund te kenn teguleen ko kudul ñi nga xam dañ fi nekk incompétent ba sax am ay leader politique yoo xamante ni nii ku mel ni Barthélémy Dias la la doon campagne Mimi Mimi bëgg ñu gëmloo benn Ousmane Sia euh, euh, Sonko boo xamante ni nii manipulateur la dafa incompétent du wax dëgg nangam ak nangam ñëw teg jox ko askanu Sénégal. le le le les trois wala les quatre mots clés yi nga xam ne moom la opposition bi doon defee seen campagne. benn soit mooy Ousmane Sonko du waxkatu dëgg maanaam fenkat la ba képp koo xam ne day wax si ñoom. baatu fen bi toujours moo xam ci plateau télé yi moo xam ci campagne bi baatu fen bi day ñëw am ñoo xamante ni nan lañ doon campagne mooy wàllu diine ji maanaam diine ji si ban côté mooy affaire Cheikh Omar Diagne gis naa ko mel ni abu jàll bi nga xam ne moo nekk seen TV chaque jour bu ñëwee toog ci plateau télé bi dina fa dugal affaire Cheikh Omar Diagne maanaam comme si que wax na yéen murid yi yéen tijaan yi donc voilà yéen fi nekkoon fal Ousmane Sonko tey fal koo xamante ni toujours dafay ŋàññi li nga xam ne moom mooy seen tarixa yi léegi nag yéenay xool ba xam da ngeen koy voté wala du ngeen ko voté démb ñëw na toog ne wala moom combat bi mu doon xeex contre Cheikh Omar Diagne moom nee na nangu na ne Cheikh Omar Diagne moom am ndam si kawam dem banaan naan sax Cheikh Omar Diagne comme actuellement dañ ko def directeur des moyens généraux muy xas kilifa diine yi tey ñu ñëw peuple bi ñëw voté ko kon nañ ko war a jox ministre de l' intérieur maanaam toujours malgré ñoom dem nañu ba am défaite. ba xam ne liñ doon bëgg di manipuler sénégalais yi sénégalais yi fekk siwu leen si mais ba léegi ñuy continuer donc di diaboliser ba léegi ñu nopp te pourtant askan bi noppiloo nañu leen ñu gis benn candidat boo xam ne comme Serigne bu sa Dieng moom malheureusement sànq dég diglu naa ko mu def benn vocal parce que moom Touba rek la doon campagne di wër di gëmloo nit ñi que ne donc ñi fi nekk nii dañu contre Serigne Touba dañu def lii affaire Cheikh Omar Diagne li mu fa am ci ay voix maanaam bureau de vote yëpp ba ci bi mu voté li mu am ci ay voix paasewul quatre à trois euh, trois à quatre voix. maanaam amul benn bureau boo xam ne am na fa dix voix. loolu na ci moom. yaa ngi comprendre amul benn bureau boo xam am na fa lu mat dix voix. maanaam moom ay voix am yëpp boo ko boole woon gëw ma ne dina mat cinquante wala soixante bu bëree ba bëri. <laughs> comprend nga. ñoom combat bi ñu doon def. na ne wane na ne askanu Sénégal kenn mënatul leen a manipuler. wane na askan bi surtout sénégalais bi donc dañu matir rek yi yenn yi nga xam ñu ngi koy jéem a jëfandikoo nga gis benn Bougane Gueye Dany keroog maa ngi koy wax fii mu toog plateau tele gis nañ sax ba si veille élection bi donc mu dem di def live foo xamante ni nii lan la en fait lan lay tekk si bëtu senegale yi ku naan xaw ma moment moment vulgaire xaw ma turam bi sax dèjà du tur boo xamante ni nii mooy loolu ñu toog ay def ay live ba pare di leen dëkk un million de francs CFA xaw ma ak benn voyage ban dëkk muy ñaari ñaari tiktokeur yooyu toog mais lan la doon wax si plateau télé bi mu ne tiktokeur yi Sénégal fii fay ñu leen te dafa dafa gis dëkku mel ni France dañ leen di fay kon état bi dafa war a def ay pexe bañ leen di fay tiktokeur fii si Sénégal ne moom bu demee assemblée nationale dina fexe ba loi yi nga xam dañ koy dugal tiktok ñu koy fay Sénégal xam nga loolu. dëgg la benn côté xorom na mais xam nga pour lan la. mooy dafa bëggoon a li nga xam mooy jeunesse bi parce que xam na ne tiktok bi jeunesse bi ñoom ñoo si ëpp. léegi pour wax ni leen yéen malgré amu leen liggéey fi ngeen nekk donc di def ay vidéo di def ay contenu war ngeen si mën a am xaalis. léegi ñu ne ah kii kat tey bu ñëwee en tout cas ñun ñi nga xam ne ci TikTok bi la ñuy yëngu. donc merci beaucoup dina am loo xam dinañu ko indil par rapport gouvernement bi fi nekkoon. mais malheureusement. malgré laay feeg malgré ñi ñu doon jël di leen fay ñuy wax. donc seen abonné yi toppuñ leen par rapport loolu ñu doon wax. comprendre nga mu jugee foofu visé ñan mooy lutteurs yi jël exemple si benn am seen ne donc dafa jugee si mbapat tey dem si kaw donc aussi jeunesse bi war nañu mën a xool si moom. boobu aussi mi ngi doon xëcc électorat bi nga xam ne moom mooy ñiy def ay ay làmbu donc pour ñu man ko teel pour wax la malgré opposition bi def nañ li ñu mën yëpp ci xeetu manipulation diabolisation donc wax gëmloo nit ñi ne waa ji day fenn du waxkatu dëgg mais teewul askanu Sénégal donc toppuñ leen si loolu ñu doon def kon loolu li muy wane mooy Sénégal dafa am peuple boo xamante ni nii depuis certain temps parce que ñun nag yàgg nañ fi nekk di wax naan askan dañu war a yeewu askan dañu war a bañ ñu leen di manipuler dañu war a xool lan moo gën si ñoom donc lu nekk ñu def ko mais tey boo xoolee li nga xam ne moom moo xew si élection présidentielle ñëw xew si élection donc législative yi donc peuple sénégalais bi dañu matir te matir boobu noonu doo ay question ko benn nit la ñu topp Ousmane songo wala keneen de mais li ñuy topp mooy kan la ñu am yaakaar kene li nga xamante ni nii ñoom loolu la ñuy dund kan moo ko mën a soppi tey gis nañu benn waaye mu tegal leen benn projet projet boobu ñu am yaakaar si loolu la ñu nekk mais tey day jël nga exemple piir mais Pire moom mooy la moom mooy le plus grand perdant comme ni ko gars yi di waxee Pire en 2017 mi ngi amoon ñaata député je pense que mi ngi amoon trois députés bu ma juumul en mille Pire 2022 ñu ñëw wala avant mille 2022 sax élection euh, non 2022 ñu ñëw avant 2022 élection présidentielle bi ñëwee ñëw je pense que moo nekkoon troisième mais 2022 ànd ak yeewi askan bi je pense que amoon na cinq sièges bu ma juumul amoon na ko wala sax jëm kaw si élection législative yi passé ba pare am ay maire yoo xamante ni am na ko si ay gox gox tey pire boobu noonu ñëw ànd ak Barthélémy Dias ànd ak Pape Djibril Fall ànd ak Anta Babacar Ngom ànd ak ñeneen ak ñeneen mais tey li am si résultat yi wane na ne moom mooy le plus grand perdant parce que tey donc maxu mi ngi koy wax sànq gëw ma ne dina dépasé benn député donc tey bu bëree ba bëri benn député lay am wala ñaari député bu fekkee sax dina am ñaari député kon gis nga loolu li muy wane rek mooy politiciens yi nañu respecté waat askanu Sénégal xam ne askan bi fa mu nekkoon ñu koy nax ak di ko manipuler askan bi léegi nekkatul foofu parti politique bi ñu bi ñu voteel joxu joxuñ ko joxuñ leen benn dërëm wala ñu jox leen ay tissu wala ñu jox leen ay casquette wala ñu jox leen leneen ñoom ñoo jël seen xaalis def ko ci campagne bi def lépp loo xam ne mënoon nañ ko ba pare dem voté leen ba pare si loolu dangay gis benn politicien bu toog benn plateau télé man sax wax dëgg yàlla bëggoon naa nag maxu comme sa waay la nga laaj mu génne la sondage yooyu noonu fan la jógee woon mu ne am na ay sondage yu génn yuy wane ne pouvoir dañuy perdre élection yi mooy 54 pour cent yooyu ñu amoon day wàññeeku Pape Djibril Fall ne sondage yi génn yëpp li ñu wane mooy euh, opposition bi dañuy gagné élection yi te pouvoir bi day perdre élection yi. Dakar Arena dañ leen doon fay di leen saraxu di leen dool ci ay biis naan leen ngir yàlla ñëw leen ngeen feesal Dakar Arena maanaam loolu ne senegal ñoo bàyyi parti au pouvoir moo tax ñu dem làqatu ju ci ay Dakar Arena pour defee seen miting mais tey li am nii wane ñu doon wax lépp askan bi dégluwuñ loolu askan bi nag gis nga. lan moo tax ma naan la sànq askan dañu matir mooy man nga ñëw di wax ñu lay déglu nga def sa vidéo comédie ñu koy partagé ñëpp di ko def débat mais gis nga bu ñu demee ba ci urne yi xam nga lan la ñuy xalaat mooy seen avenir xam nga lan la ñuy xalaat mooy ban candidat malgré wax ji bëri na mais kan moo yor projet bi nga xamante ni nii buñ ko voteelee seen bëgg-bëgg dinañ ko jàllale à l'Assemblée nationale te je que loolu moo am bërki démb Euh, damay rebondiraat euh, rapidement si yow euh, Maxu comme ni ko Ousmane waxee léegi nii PUR ndax commettre une erreur monumentale en décidant de s'allier avec la coalition Sàmm Sa Kàddu waaye tamit suñu gisee les résultats dañu gis ne que seen coefficient dafa gën a wàcc surtout sur cette joute électorale la xam nga je pense dafa am benn benn benn pensée bu nit ñi bu nit ñi dafa xam nga Barack Obama daf doon wax hmm. nee le vote c'est une voix qui dit ce que nous pour demain et ce que nous voulons pour nos c'est très important mu ne le vote c'est une voix qui dit ce que nous voulons pour nous-mêmes et ce que nous voulons pour nos enfants fan lañ bëgg a jëm vote bi dafay wax te dafa am loo xam ne boo ci duggee ba pare les erreurs en politique c'est paye cash. xam nga euh, pur. dama maa ngi jégalu mais pur depuis presque bu beaucoup lu yàgg pur ay erreur rek la. te pourtant pur dañ ko xamoon ci organiser. Mm-hmm. une bonne organis mais dafa dugg ci coalition boo xamante pur. puusul paasul maanaam takku ci rip takku ci rip parce que ba léegi yow déggoo non da non pour pur moom sànn ci mooy xam nga élection présidentielle pur ñoo ngi toll woon ci deux cent vingt cinq mille cartes la ñu mhm. te dañoo daanu pur y a nit ñi dañ naan c'est un plafond ils un plafond de verre boo xamante ni trois cent cinquante mille duñ ko dépassé votant mm-hmm. mm-hmm. c'est un plafond de verre mais trois cent cinquante mille yooyu boo ko laalul trois cent mille yooyu boo laalul yooyu noonu da ngaa daanal mm-hmm. léegi nag pur takk na bu baax ci coalition sàmm sa kàddu mooy nag bokk na le simple fait nga di nga wax ko bokk na te sët bii dafa am lu mu loo xamante ni dafa ne maa ngi jéggalu ci wax ji yaakaar naa du manque de respect. Mhm. dafa tëkk woon Ousmane Sonko. oui ne maa ngi koy xaar ci waaw mhm. élection législative yi. Mhm. dinañ dinañ dina xam lan la ñuy peser mais loolu yëpp su amee. ñu dem élection. PUR a été lamine lamine même à Tivaouane Sàmm Sa Kàddu a été laminé. mais qu'est-ce que ça veut ils ont fait une erreur boo xamante ni kat. ñoom. mën nañu rebondir parce que ñoom seen électorat yaakaar ma ñu bàyyi leen mais un électorat dañ koy organiser am na eh, xam nga lan la ñu war a jàngal résultat yi mm-hmm. élection am nga droit ànd ak